ci fièvre bi nga xamné moy corona bi waye li gis nañ ne mo upp corona bi ndax ni dund nañ ko ay ay ay ay weeri wér bala corona bi di yexi donc te bu fekkee ne président mi ngi xex euh jëm ci askan bi ci lépp lo xamné jafe-jafe la man damay wax ne ana gouverneur damay wax ne ana le maire Mariama sar damay wax ne ana député yi damay wax ne ana préfet damay wax ne aussi ana ana ñi nga xamné ne ñooy politiciens yi nga xam ne tey eh, biñ soxlaa dañ di ñëw ci askan bi te kenn ku nekk ci député yi wàcc nga fi eh, ñoom ñëpp le maire wàcc na fi ñu yëg lii gis lii wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ne nii mbir mu ñaaw la mbir moo xam ne nii dafa nekk gàcce sax président de la république mu yëg ko lii ne gàcce la ci ñoom waaye gàcce la ci seen diggante ak population bi seen diggante ak askan bi nga xamee ni seeni askan lañ buñ soxlaa ci ñoom lañ jëm waaye tamit gàcceel la pour président de la république Macky Sall yëg li nga xam ne tey mënut a wàcc fajal fajal ko Kaolack mun ta wàcc fajal ko waa na mais aussi euh, ñoom ñi nga xam ni tey ñoo fi teewal population bi nekk diggante population bi. ak ak diggante gouvernement bi ñoo waroon a liggéey lii balaa kenn di xam wala balaa kenn di yëg wattuma la président di ko yëg mu nekk lu may oo autorité yëpp. bàyyiwuñ kenn autorité Kaolack yëpp kenn ku ci nekk di ko dalee ci gouverneur di ko dalee ci ñi fi nekk ministre di ay doomu Kaolack di ko dalee ci ki nga xam ne ni mooy maire ak député yi fi nekk ak ñenn ñi nga xam ne tey mën naa tudd seen tur muy ku mel ni Mouhamed Ndiaye ma lii seen liggéey la woon ak préfet seen liggéey la woon ñu ngi oo ñëpp ndax lii wax dëgg yàlla doy na feebar ñii de dund nañ trois mois trois mois lañ dund ci lii muy dugg seen kër yi te fii la ñuy tëdd ak seen njaboot di fi togg seen lekk ak seen i njaboot di dund lii balaa corona comme nag ñun am nañ président boo xam ne yàlla dimbali ni kéemtulaay kàttam ak itteem lépp mooy xeex ci li nga xam ne tey feebar bii ñëw na ci réew mi te yàlla na ko fi yàlla jëlee loolu nekk gàcce la ñi nga xam ne tey ñoom la yàlla def ñu nekk ci diggante gouvernement bi ak askan bi di seetaan lii mu nekk lu ñaaw maa ngi o di def appel président de la république Macky Sall mu wax ak ñi nga xam ne tey ñoo ko fi uutu fii ci euh, dëkk bi waaye tamit bu fekkoon ne képp koo xam ne yaa ngi nekk ndaw nekk ndawal gouvernement am lépp loo xam ne war nga koo taxawu ba nga xam ni du am lenn luy ñaaw loolu dafay sigil sa askan waaye tamit dafay sigil sa président bi nga xam ne tey euh, léppam wala itam lépp pour Sénégal jëm kanam la lii rafetul ñaaw na te gàcce la euh, ñeel ñi nga xam ne tey ñooy kilifa yi dëkk fii ci kawlax maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp Euh, di ñaan ndimbal waaye aussi tamit di ñaan euh, doole ak jàppal goo xam ne nii dana gaaw lool lool lool